bu ñu naan oustaz daawu ndaw sëñ daawu ndaw na ma déggee groupe ba it maa nga ca ndax daara la daara la day jàngale lislaam ni ñu koy defee ak ni ñuy moyoo lu bon lépp luy lu baax mu ci groupe boobu moo tax ma ne du daara la daara day digle lu baax tere lu bon mu ne ma waaw góor Eh, daldi ma ne nang ma leen noyul ne leen sëriñ bi nee na wa jaageen jëf ci jumaa yi jaageen jëf ci jàkka yi jaageen jëf ci yaram njaboot gi sant naa leen gërëm naa leen bu baax a baax nañu ci gën a yaatal posteef eh, ma ne ko nag li ñuy xalaat jigéen de daa taxut am xelam gudd lool bokk nañu lu baax nag waaye nag la nga xam ne mooy dem ci wàllu sëy yi ak programme yi ñu ci laltaay dafa yaatu lool te am nañu ko mën a wéyal am nañu ko mën da wéyal ñu bokk caa waxtaan nag lu ko oyofal bu kenn ku ne mën a dem ci jàmm jàmm jig la nga uuf ca sag njaboot moom nag la mu jekk a xam mooy la mu ma waxoon tuubaatul bokkut ak li mu ma wax fii de reefande moo leen yelif moom xam na loolu maa la fa teg waxtaan leen nu ñu ko gën a mooy no oyofale bég yàq du fi am beew du fi am jaamu yàlla gi yaatu nañu ko doxale loo lu ñu ca juboo tenk ko nga ñëw wax ma loola ma ñaan ci yàlla ak yonent beeg sëñ Touba te nu wéyal loola ku ne xam na ne nag ne diine lislaam la mu santaane jaamu yàlla gii di julli ak woor ak dem makka ponki lislaam yi yépp daal ba mu mat muy juróom def ne nan ko mone rek la la ko sante am déet yéen ustaas yi kon ni ko mone rek ndax julli bu fekkee ne mënoo julli taxaw nga taxaw weedu soo ko mënul deju ah loolu yooyu yëpp nag sar yi mu la jox nag ci julli nanga nga ko mënee rek nga koy defe kon nag itam nit ki bu fekkente ne dañu koo teg ci ab sey loo xam ne eh, mënu ko gàllankoor da cay mën a am ndax nit ki bu fekkente ne yow tey yow mën ngaa sànnal sa doom ba mu mot te man mii munuma ko ndax balaa ma koy mën a def rekk sëñ daawu ndaw de def na ko kon sama doom ji doomam gënul sama doom fi mu jaar naa fi jaar ma leb sëñ Moustapha Faye leb sëñ Saaliwu jon def ci ku ne soxla li mu ma joxoon waa ndaw sii bu ñëwee sëy si ndaw sii bu ñëwee sëy si jërëjëf sëñ Yuusu jërëjëf Ndour jërëjëf maam ndaw si bu sëy see li ñu ko waroon a yore lépp ñu def ko lii di ay bor nga war koo fayee boroom noo koy yore te nga gém sëñ Tuubaa ne dégg la mu wax la ne wa mil aaxiri gém leen def dañ ne mu ngi ñëw warusul kiram gém yonent yi waxadari ak ndog yi comme am ndog day am ci xemem teef gu ne yow mën nga am gàllankoor yor ndax ku yor ab seet ab seet ñëw te kat sëñ Tuubaa mi nga gém wax na la du bil maram nga xam ne lu nekk gàllankoor mën na caa am gàllankoor mën na cee tàbbi waa léegi yow soo jëleeb seet financé ci ak say bokk liggéey yor ba mu jee tàkk ndaw si ñëw wéra di dab ko mu war a opérer foo jëm li nga amoon lépp def nga ko ba jël alali jàmbur def ko ci hôpital war opéré war a am yoroo ko nooy def kon seet bi du dee kon seet bi du dee kon bokk yi ñoo lor seet bi seet bi sëy si ñu war koo dundal yore ko yoram pajam yor léppam li ngeen am ngeen def ko ci seet bi ba mu egg ba lépp def ci seet bi am gàllankoor ak tawat ndax kat yàlla moom tawat te fu de la koy yeb gàllankoor am ci kii nga takk te yow yaa war a faj yaa war a dundal seet bi am gàllankoor ak war a dem hôpital feebar bii mu yor dañu ko war a opérer ñu wax la ci lim bu yaatu boo war a def te li ngay ron seetale nga ko bokk yàlla ñu amoon foxe foxe nañu ko yow fooy jëleloo foo fooy jëleloo ko def seet ba day dee rek ñu naan ci yàlla yàlla deful dara dala noon defal la nga mën defoo la nga bon dex jéem loo mënul te diirante mbag moo la teg loolee kon nag problème am na foofu ba noppi nanu seetaat bu baax nag loolu sëñ bi nag nee na ma yombal can yi ngir barke yaatu ci suñu ko mënee de moo gën bàyyi pommi ak yàq gi te wéyal ak jaamu yàlla ak toppanteek bennoo te it loolu defe naa yàlla moo ko jëkk a santaane wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu am du noonu sunu santee nag nu jàppante waaye nag jàppante gi lu jara leeral la ndax waxut nu jàppante ci am po waxut nu jàppante ci diirantey mbag jàppante ci buum ak lislaam gi nu yàlla tenk muy buum ak dëgg ak jaamu yàlla li lay may euh, texeeg àdduna ak texeeg alaaxira loolee nag goog a jàppante lañu wax waaye jàpp waxuñu ci jàppante geneen nag su ko defee nag ma di leen ñaan man mii damaa ame ngant li ma gen li ma yekkati ñaar rekk la muy ndigalal sëñ bi jëm ci yéen bu njëkk buy bakk dem dem xew-xew bii nu am kenn tegul ma fi bot nganta ko waral bi sëñ Muntaxa nee ma yébbal ay doomam ne ma nañu ñëw jaar ci man nu dem ñu teg xeer ba bi nu demee day sëñ bi def liggéeyam be noppi lanu dellusi si génnaatuma njaboot ak sëñ Masamba gépp sama kër la ñu ñëw ñoom ñépp fa la ñu yendu fa la fanaan waaye taxut ma mën a génn bi ñuy noyu ji taalibe yi sax mënumaa génn ngant nag yàlla moo koy dogal waxoon naa ko fii léegi kon dellu ci ngant lu ma am nag sant naa ko yàlla eh, su ko defee nag man xam naa ne dañu ne teb leen day ci ay wolof fekk na sorket banki tànkam man mii nag noonu laa def ndey astu cawam alaaji sama doom day dem ba muy nopp pay si njaan dama lu ñu ko fa wax rek te nu mon ko nanu ko def ba mu ñëwee it waajuram bëgg a ñëw dama ko ne dara nag bu mu dugg sama ker du juróomi dërëm mi guro du super du dara du benn ndimo bu mu fa dugg nag awa yad mii di doom ci Issa Thiaw ba ñu ma ko mayee ci ngor ak teraanga it la ñu war a def ci can dey sama waa kër def nañu ko waaye ba Issa Thiaw ñëwee ak ay bokkam dema ne lu ngeen mon jent doo leen ko ci seen biir waaye bu mu dugg nag sama ker loolu sëñ Saaliw del ma koo tere woon ci dundam te ñemewuma mu tere lef nekkatut ma di ko def sama ker du am ñi nga xam ne tuubaatul lañu ñu dekk sama yaay moo topp ci seen yaay muy Mamour Mbaaxe yi ñii kii di meerab tuubaatul bii tey muy Amet Jeey Mamour juuf moo jur ndeyam juuf moo mën nag sama yaay a topp ci waajuram su ko defee nag moom moomu sama doom ak mbentin laa laa fa maye ñu gaaw teeg jëndi beñe def lépp ak i boisson jël oto ma ne bu ci dara dugg fii bu duggee du wàcc ñu wax pencam cola la ñu ko mayee Abdou fay courant ngi nii sëñ Abdou Faye teewe na la ay beñeng fay am ak ay tàngal ak ay façon si bu nekk dañu ko fay naan ci ay tàng xoolu ma la ci lay doxal man li ma sëñ bi sant laa toxla la sëñ man sëñ mat nduur mii maa ngi dégg muy doxal lu mel noonu man sama ker pot du fa dugg lu ñuy seddale du fa dugg lu ñuy seddoo du fa dugg dara ci ab di am du am sama ker ku man sama doom nag sa doom nag lu la neex laaj ma bu ma mënee dinaa ko def de ndax doom nawle bàyyi la diw laa bokk danaa ca jéem lu ma mën waaye mbokkam nag du jël dara di ko dugal sama kër du ma ko mos nangu te ñi ma may ñëpp ku mos a ñëw jox ma téeméer ci can ma nangul la ko nang ko wax Sinjaan ak fuddaay ak fu ne maye naa fa na ma ko wax sama doom sëñ Saaliw yóbbu na ko fale njoobeen ak Fudaay su ñu ma mosee jox ngoro ba ñëw jox ma téeméer na ñu ma ko wax Asan Saar mii tey mu ngi noonu moom njole Juuf tàkk na sama doom fu nekk sama doom dem na fa di fa sey bat su ngi ñi ma bokkal géño ñu jël sama jarbaat noonu samay doomi mag yi ma maye ku xam góor gu mës a ñëw ma jox ma téeméer ma jël ko nang ko wax feeñal ko ñépp dégg ko ko ñëw dema naan maa la war a jox ndax maa yor lu baaxut boog ñu yoral ma ko yon bi sallallahu wa sallam de dafa wax ne jigéen ñoo ko bind ci faar su jubee loola xar baax la waaye baaxoowu ko kon nga xam li la yàlla may lu mu doon li ñu la jox gàtt nam xel néew na kattan naqari na tot te foog ñu yore ko ku ko yor di nga sonn muñal koo góor góorlu ak soo ko yoree nga ni sama kër lii laa ci bokk waaw baat nag nit ku ne war na koo am ci keram segam ki nga yor yaa war a yaa war a dundal yaa war a def lépp war nga am ca baat ci moom ne lii moom laay moo fii am leneen du fi am jigéen war na mën a yor baat te war nañoo xam cer bi leen yàlla jox lu ci bari dey wax nañu ne njàngam alxuraan yi sunu bokk yi def di ustaas de leen di yóbbu ci ajana yaa gën a kawe nag gis nañu ne ku ku dugg ci jàkka gis ca porox dal su yaraax nga dugg fa fat ko rek sunu borom dina la tabaxalam nekk ci àjjana loolu de am na gis nañu ko de donte ka sunu alu ba soriwul gis nañu ne jigéen day su dee julli waxtu yi juróom di woor weeru koor topp ndigalal borom këram ca la neex sunu borom sàmmal boppam borom këram ba kenn du ca am wal kooku joo jigéen de nee ñu bu génnee àdduna dañu koy wax àjjana ngoongu rek fu la neex dugal. gisuma nag benn hadis wala ma degg ko boo xam ne yàlla wax na góor ne dangay ngay dugg ajana fu la neex nga dégg fu dul jigéen kon nag sàmm wante xam ne dañu laa war a yor topp sa boroom ker ci ndigalam su la nee bàyyil lii jëmut ker bàyyil loola su la nee defal lii muy ndigal lu neex suñu borom defal loola te xam nga am nga cër ci ajana nit ñi nag damay wax ne yàlla bind nanu waaye xamunu li munu binde ndax ngir lan segem boo defaree jàkka wala jumaa doonte daa toll ni tagam pi taxtaan yàlla warlul la dëkk waaye eh, ajana loolu de neex na waaye lan moo ko daq benn tib boo jox ab jullit day sunu borom ne na maanaam moo gën junni ci ay jumaa jumaa ji lu muy baax baax benn tib boo jox ab gor ak julit mu lekk ko saxami ko moo gën junni ci lii kon nag doomi aadama moom la yàlla fonk segem daa bi nit ak jiit ak malaaka te bindul leen lu dul ñu ragal ko te yaamu ko te bu ëllëgee doomu aadama yi rek ca digg ba billaay yàlla fonk doomu aadama waaye doomu aadama bëggul boppam fonkut boppam xamut fu mu jëm te itam na taalibe yi topp seeni sëriñ jigéen ñi topp seeni borom ker ci neex sunu borom ndax kat daa am wax bu ma jiitaloon bu jiitu bii dama demoon ci sëñ Muntaxa ne ko dama am samay bokki bopp yoo xam ne day ndigalal sëñ Tuubaa jiitu won na ca muy Tuubaa tuul gi sama waajur juddoo jàpp naa ne ba sëñ wu yeggee ne sëñ Abdou Khadir fa la yendu dana sëñ Jiili Sekk demal woo ko sëñ Jiili Sekk dem woo sëñ Moustapha Abdou Khadir mu ñëw ay jamonoy min wi fekk ma fa mu ne ko nanga xam ne day tuubaatul tuul googee day waajuru sëñ Asan fa la bawoo mu ne ko ah ndeysaan man de loolu bégg naa ci lool bi tax na sëñ Moustapha Abdou Khadir del mbay indi café di ma indi suukar di ma indi warga di ma indi guro di ma indi ay guro ay ay fii ci sama néeg bennoo bay yàq gi lu ngeen ci tënk nag ma yóbbu ko ko bu ngeen bu ngeen noppee lu ngeen tënk na ko sëñ Yuusu bind ma ànd ak moom wala sëñ daaw ndaw ba dem jebal ko ko ne lii la ñu waxtaane loolu rek la man ndaw dong laa duma ci dara nag dañu ma fee teg rek teguñu ma fi ngir ay nag teguñu ma fi ngir ay xar toogal ma fi ci bokki jullit yi nga bokkat di leen digal li may digle di leen tere li may tere lu ngeen lu ngeen ci juboo nag rek wax ma ma wax ko ko moom forcé wut kenn noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm di leen gën a jox sunu bopp te xam ne sama mën a di dey ndigal bokku ci gunne yi gën a doon ay tuut tànk yi manki fukki at sax bu ñu nekkoon ca ngooñal wala fu ñu mën a nekk woo ma fa wala bisaas danaa leen fa fekki ngir kadoog sëriñ bi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm foofu doy naa yem man damay damay dellu ca kër ga lu ñu ci tënk rek na ngeen fexe ma yegg ko dinaa dem niit li sëñ Muntaxa ne ko daal la bokk ya waxoon ba ma tàggu la ko lii la am du noonu waaw kay nekk leen ci jàmm baal leen wax nag baal nañu leen àq. yow ma xal xalqu niiraan man zanna xayrullah yox nii aw seexul xaddim mbokki taalibe yi mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaar siyaar ba gën a tàdd ci siyaar yi ngir jëm mi seexul xaddim mbàcc mi nga xam ne moonu likke di leen balu xaq ñeen ñëpp di leen balu xaq baal xaq te yàlla rek tax kon day mel ni dañu leen di dikk ay kàddu yoo xamante ne ab yóbbante la nu fas yéene na munu ko yóbbante lanu ca man sunu kem kàttan nu jottali ko muy monsieur le maire bi nga xamante ni ci wàllu maanaam état moo jiite tey jii maam reefan ak li ko wér yàlla dogal mu nekk ci ay yitte yu yaatu yoo xamante ne lépp it dara waralu ko lu mel nii muy dëkk bi mu am ay réew yu ñu mu war a def daa di ma yee yàlla xam ne ay gan laa bàyyi kër ga waa de gan yi ñoo ma ne sëñ bi kat lii maam farata la daal di dem ngir ma jotlil ko ay kàddoom loolee moo ko tënk ne kon day taali otoom fekk si ko waa net ne na la nga xamante ne moom la ma yóbbante mooy li ñu fi def moom lañu ko defal ndax li gën a wértóor mooy li mu bëgg mënalu ko boppam waane ci wàllu diine li ngeen bëgg mën naa ne ca gannaaw di puus te fu ngeen ca toll dina ca toll xamal na ma it ne lépp lu ñu ci jàpp nañ jàpp ne mu ngi ca jàpp fuñ ci war a mën a yegg te moom mu loon loo xam ne loxoom mën nag faa yeggale mën nag faa yeggale waa nag mu ngi leen di ciy sant te di leen ci gërëm te xam ne li gën a wértoor mooy ku nekkal état moo gën a bañ yàq ndax yàq moom amul njëriñ kon nag nee na maanaam moom ngeen di jàppale ba ngeen jàppale seen bopp bu noppi li nga xam ne moom ngeen ko dénk wan na ko ne yéen a ko ciy jàppale ndax bëggut yàq te it yàq gi moom amul njëriñ te déggagu leen benn maanaam président boo xam ne dégg ngeen maam fu muy def ay ngénte di joxe xaalis wala mu di fa ba basar ne xaalis wala leneen kon nag bala benn sëriñ xalifa général boo dégg muy ngénte wala muy def leneen di fa def kon nag maanaam li wértoonu yàq baaxut te ba ko yàlla bañee la ko bañ kon nag monsieur le maire nee na yéen ñi nga xam ne yéen a jiite lii ak ña ko woon bu jëkk ndax booba moo ko présidé woon kon nee na maanaam mu ngi leen di xam ne na mu jàppe woon lu jëkk la la jàppe lu tey te xam ne maam ak sëb moom bu teyee tàkk fet wat gudde la koy taale moo tax mu nangu réunion tey bii nee na mu ngi seen gannaaw lépp loo xamante ne doon na wartee fam na ngeen xam ne maam bu dee moom la pare na kon mu ngi leen ciy jàppale bu baax te di leen ci encouragé te xam ne maanaam li yàlla bëgg moom nit mënu koo bañ wala ku ko bañ bokkoo ci maanaam waa ñi nga xam ne ñoo ànd topp ndigalu suñu borom noonu la ko ji bi waxee la ca des it mënu ko wax waan yéen a ma koy saraal xam li mu ci jublu moom mi nga xamante ne moo jiite mbooloo ndax kat gis ngeen li sëñ Assane wax ba mu waxee dane sëñ Muntaqa nangam kon nag li wértóor mooy loolee da koo dimbalee sëñ Muntaqa kon it moom lu ñu ko jàppale fit dañu koo dimbalee ndax su sañoon ñu ne reefan la ñu def amul benn dëkk bu ko man te it maam jàng barki démb rek ne na maanaam ku ñëw fii de doo wax waxam da ngay gis Touba da ngay gis Touba bu wér te dëkk bu ne bëgg na ko te amu ko waa ne moom da tiitaroo kon nag suñu fii def loo xamante ne luy luy neex sëñ Muntaxa la ne na maanaam moom it da koy tiitaroo moo tax mu leen ci encourage di leen ci jàppale te di leen xamal itte yi ma nekk moyut reefan kon maam kon mën na maa tënk foofu samay wax ngeen saral ma ko ku ciy sant ci biir bu boobaa nga sant ko am ne ma sa ndaw yegg si na kon loolu laa ca moroon maa ngi cee wax lii nag sama waxi bopp la ci maam taalibi gi nga xam ne moom ci laa bokk noo ngi leen di nuyu bu baax baax di am mbégte ci lii lu jëkk la nag bokkoon naa ca ba teyit génnuma ca waan nga ko dindi it ñëpp xam nañu ko dama wax ne dafa am luy dox loo xamante ne fekk mu ngi dox dara du mën sotti nit maanaam wax ak soxnaam ne ko maanaam lii mooy am sama kër mu dem góor jóge ca këram ñëw ne ko maam na góor kii na bàyyi lii tey képp la dama ne bo dañu ñi defuñu la góor ñee def góor su fekkente ne jote naa ak jabaram ci maanaam sama kër lii mooy fi am góor bu ñëwee la mu ko wax maam boo topp sa jëkkër bàyyi naa fi dem na ndax kat maam kaddoo may sax sama kaddu du sax waande góor ay jaar ca suuf ne ko lii muy def moom tegu ko fen ndax ñu ngi koy def barab sàngam loolu ci boppam mu ngi ci biir góor ñi dama lax murit dëgg ak mauvais murit dafa am dafa am ñoo xam ne wax la ñuy def rek waande giñ naa ci seexul xaddim bu doon bee bascule bu ñuy peese bari na ñoo xam ne seenu poodu daanu dama ne lii nuy def maam foruñu ko sànnanuwuñu ko Serigne Touba di ko def ci njaareem def ko cib téere ne maanaam soxna su mot ta ñaari téeméer ku mos a sëy téeméer ak juróom fukk ku ci dandane nag lii ma wax maam maanaam doo ca gis mukk bànneex sëñ Fallou ñëw ne ñetti junni maanaam koo xam ne maanaam mas nga mostoo sëy nañu ko jox ñetti junni ku mos ta nañu ko jox junni ak juróomi téeméer ñépp di ko dégg maanaam dara lañu ca defut Touba ga mu dëkk ñoo ko ñàkk a def mais ña ko dafa jëriñu waa ña ko defoon kenn jëriñu ci sëñ Saaliw Mbàkke mii wax na ko fi ne maam affaire yéew yi ñuy def ci say kii maam laa bëgg mu deñ ba sëñ Saaliw waxee taxut mu deñ am na jigéen ñu ko def ci biirum néeg ka ko woote woon daa faatu kon maanaam ku ko defut ndigal li la la cay la la cay topp ëllëg ñëpp war nañu koo xam dama ne Touba man du ma fa jóg bari na ci programme yoo xam ne damaa noppi mais lu ma ci yëgut amut barke Serigne Touba football Serigne baa ngi koy bañ Touba dama leen quartier boo dem fekk gone yooyu football mënoo ci dara waan nag taalibe bi bu gëm Serigne Touba fu mu nekk Serigne Touba ngi ci wetam maam du nu seet Touba dañuy seet Serigne Touba li mu bëgg te it fu mu bëgg nga def ko dañu ne maam Touba foo nekk ak Touba la ab Ablaat wax na ko foo nekk te nopp ndigalul Serigne Touba Touba la foo dekkoon biir tubaa te nekkoo ci Serigne Touba dana maam du Touba ci yow du dara ci yow kon nag li gën wér mooy damaa bëgg nu waxtaan bu wér ci dëgg. dama bëgg nu waxtaan bu wér ci dëgg kenn ku ne yaay gu yor koñ ba nga yore dox ba yaa la cay dox yaa koy doxal boo jëlee fii li nga jël dangay dem doxal ko nun suñu jàkka beñe du fa ñëw leneen du fa ñëw yaa ngi dégg ba mu amee ba léegi leneen du fa ñëw wante dama la gis nga biir néeg yi kenn mënu ci dara dem ci néeg tëju bàyyi ba mbind bi ba góor yi nelaw ñu dugg ci seenum néeg toj réew mi yëpp jigéen ñi dañ koy def barke sëriñ Tuubaa ñu ne maam doo yebbi ñu yebbi ko beneen yebbi beneen façon yebbi la ñu koy yebbi yaa ngi dégg man gis naa fii jigéen ju yebbi ba mu xëyee amul ndékki waaw yàq nag bu yàq sa bopp moo gën a yées moo gën a yées waaw te it li fiy dox nun dañu koy dañu ko nañu ko doxal ci Serigne Touba sëñ Amdi Fall dafa wax ne ca Daaru Bayre gisuma lenn ci àdduna lu gën ndigal su ma gisee lu ko gën ma bàyyi ko topp loola. ndigal moom caabi la bu ëppee du ubbi bu weesee du ubbi waane bu ca yemee ak kasaare ka ciy topp waaw gis nga fi mu toll nii sanction bi sëñ Abdou wax dañuy jàpp ne sanction dañu naa policier da lay jàpp déedéet ndax loolu eggunu fa dañu naa maam xëj na leneen mais maam doomu aadama saa boo ko te itam dëkk bu ñu la sanctionné fa ngay jëkk a xalaat boo faatoo ku lay suul sanction fa muy tàmbalee maam ndax di nga faatu ñu defal la fukki xul ak juróom sanction maam benn bu ne mën naa am wante dama ne lii mën nanoo wax ba sonn du mujj fenn waaye nag bu ci sëñ tubaa jàppee mu mujj fen yàlla nañu sëñ tubaa jàppal kon nag ci gàttal laay wax nanu gën a góor góorgóorlu te wax muy deñ baaxut te it ñu baree bari dañuy wax ne maam góor ñi li wétti woon mooy nii la ñuy def naa la ñuy def nii la ñuy def wante dama ne ni tey jóge ci këram yàq këru jàmbur ba billaahi wallaahi wallaahi ilaaha ilaaha illallah jigéen ay góor ay jóge ci këram yàq këru jàmbur boole kook jabaram bu ñu tampul nit ñi di ko seetaan waaw nit ñi di ko seetaan soxna sa gën ñu ne ko yaa am dëgg man saamel ngoma ngi man ñëpp a ngi dégg maa toog ne leen damaa fekki fii taabal ndax man xew yu bari xëj na du ma ma fekke taabal ne waa lii lan la ma gis ñu sol ay ay ay kii defar ay biteel ay biteel yu mel ni comme ni ko tubaab yi defe boo seetaanee filmu tubaab bi ni ñuy defe teg biteel yi di ko wér noonu lañu koy defaree bu ñu noppee bu ndaw si ñëwee oto bi riir maam ñu topp ko sor ko li tàccu mu foonanteeg jëkkër jëkk far loolu xaraamut lu bon ngoongu nit di ko seetaan ma taxaw woo sama waa daayira ca daayira saamel ngom bii ma woo leen ca jàkka ja ne leen waxuma ci turu kenn damay wax ci man li may jëfe fanweeri at juróom nooru daay ni sëñ ab ko samp maa ko jiite caaro fanweeri at juróom ca reefan maa fi jëkk indi kuréelu ma fu ma wul yaa ngi dégg ba nu demee nun bu nuy bu nuy bu nuy may nit soxna dañuy dem maam jàng fus di ahbabtu ñii ne fii ñee fii ahbabtu soxna si solu ba jëkk musóor bu jëkk raam jébbalu cib sëriñam ne ko jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira noonu loolu mooy sunu taabal ba ma ko waxee am nañu ci wax ne këram la yilif moon tey yilif kërifam këram barke sëriñ Tuubaa moon tey yilif kërifam këram di yilif mu jàmbu mais man loola naqariwu ma waa ne maam sama message jàll na ndax gone ya defe defe nañu ko def nañu ko ko koo ko defalatu fii mu toll neexatu ko fii mu toll ay maanaam taabal yooyu koo jàngalul ahbabtu ak fusti amatut lu ko neex loolu moo dib liggéey maam am tëgg warta am ci kër murit waaw te sëñ Modou Aminta nee na li gën a wér te wóor mooy bari na ñuy dem billaahi wallaahi da xamuñu Cheikh Ibra keroog ba sëñ ba jóg ke bay siyaar si sëñ Ablaat keroog maam néeg sëñ Modou Aminta laa ndekkee billaahi wal kitaab mu ne néeg bi sëñ Ablaat ma koy ndee yéen am ngeen tawfeex keroog li nu wax ci Baay Faal dama waaru ci sama bopp barki sëriñ Touba mu ne ma njaxas sëñ Modou am sëñ tu sëñ Ablaat sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Ibrahima def ko amul kon da daan def fu dagg mu def fa morso muy njaxas waaye ndax amu ko woon saqal kawar Cheikh Rafal da dafa amut kon teeñ te bu ko sëñ Touba ne jëlalee du dem utib teeñ mu fab kawar gi saqal ko di ko defub teeñ Cheikh Rafal daa settoon ba maam nanguut a teg tànkam bi ci suuf barke sëñ Touba. la ilaha illallah la ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah am yéene te na waxtaan yi mënuma ko wax ndax loo wax ñu ne amul kenn ku dëkk Réfane ku mës sa jàpp ni sëñ Ablaat daanoon toog muy wax may wax ndax bu ma ko waxee ñun dañ gis tal ba ci sëñ Saaliw sëñ Abdou Khadir barke borom tubaa ba ci sëñ Baara te joo naag moom cim néegam daayira yëpp taxaw man képp la réservoir wax ak man la ma bëgg ma daal di ñibbi keroog sëñ Aliou joon fala ma fekk ak sëñ Assane Soum mii barke sëñ Touba mais damaa xam ne Refane de dut benn dëkk ci àdduna li nu sëñ Touba defal ci suuf si defu ko ci benn dëkk sama daayira bi bu ñu ñëwee dañu fab suuf si di ko maq ne Touba ak ne barke sëñ Touba loolu nag nun bu nu ko xamoon waaw waaw waaw waaw waaw li li nu li nu bëgg bu nu ko defee gis nga daayira yi ci dëkk bi daayira bu ci mawlut nga daanu daayira bu ne tey jii mën naa jël maam ay pas-pasam di ko def ca dëkk ba mu ne lépp lu ñu fay doxal ñoom ñooy takk soxna yi ñoom gone yi ñooy defal lépp ñoom bu mag ñi defee ñoom ñu continuer li nga xamante loolu sëñ Tuubaa bëgg daayir bu ne nga doxal ko fa nga dëkk gis nga daayira bi ma ne caaroy dama ne korité gii passé maam dama promotion la ñuy def sëy maam bu ñu demee bu ñu bu ñu wari bu ngoon gee maam la ñuy sëb ndaw si mu sëy kenn du ko topp loolu la ñu teg nun amul ñu koy topp ñaari nit a koy topp bu ñu demee yóbbu ko mu dugg néegub jëkkëram du ñibbisi ñu tuddee ko promotion ngir maam nit ñi mën a dégg wax ji yombal lépp loolu la ñuy def kon li gën a wértu woon mooy sëñ Muntaxa la mu bëgg ca Touba amu ko pantalon yaa ngi fay wey mais man reefan damaa bëgg maam ñu defaat ci beneen liggéey ku ne liggéeyal sëñ Touba ci reefan fii mu toll bu école bu bu ñu wàccee sama mbedd mee jaar fa pantalon yu ban la ñuy sol tey maam ci kër kilifa la ñuy jàng alxuraan ñi tari alxuraan ci la ñuy jóge ci seen kër yi la ñuy jóge lu tee maam pantalon jóge fi ku koy génnati maam nga def ko sa kër mais doo ko génne mbedd mi loolu lépp war naa mën a bokk ci sanctions yi waaw ku jër pantalon ñu am ñu taxaw ak yow ne la bu fi jaaratee dinañu la def nangam bu boobaa góor ragal na me góor ñeme na mais jigéen ñemewut fa bu pantaloo dagg oom bi te di jigéen ah nga ne jigéen joojee li gën a wér toor mooy man ngaa fexe fexe ba mu nangul la ne bu ñu koy takk du ñu joxe alal dinañ ko joxe ndax la muy sol tax est-ce que du la muy sole la ñu ko bëgge col ga mu sol tubéy ju dagg jaak ju dàng ja lañu ko bëggee waaw bu ko defee nag daayira yi dëkk bu ne am nga daayira daayira bu ne mooy dem ci daayiraam waxtaan ne maam danoo bëgg a doxe nii ku ni doxe nu doxe nu ku ni doxewut nu doxe nu bu defee maam dina leen dimbali man loolu laa bëgg dina leen dimbali maam ci sama gàttal maa ngi gàttal foofu ndax li ma bëgg a wax lépp xaju ci waane maa ngi jéglu ñëpp di balu àq ñëpp ngir jëmmi sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah xaw ma nag di ngeen xam li tax ma wax loolu wala déet ku bokkut ci ñi soof doo fi toog ndax tey boo jógee fii dem ñu naan ñii dañoo soof rek ñi dañoo soof rek mooy wax ji comme ni Baye Lamp waxe nii léegi nii dangay dem ñu woo sa waay ci roq ne ko demal gis sa waay ne lii benn bés dong la benn bés dong la sa waay ñëw gis la ci pet nga ne waaye dama doon kii rek ndax gaa yi lii lañu ñu nangam nangam bu boobaa mu mu mu toj sa bopp loola dal di yàqu looloo tax jataay bi ku bokkut ci ñu soof doo doo ci bokk ku ku lislaam ñor fi mu ne nii bokk nga ci ñu soof ku lislaam ñor ngay dundal lislaam di dundal diine nekk ci ndigalal sëriñ bi barke sañ Fallou bokk nga ci ñi soof kon nag nañu gën a góorlu te xam ne bayal boo fi dem mu mel nii sëriñ bi lu fa am muy xew-xew it wala leneen sëriñ bay yeble kan ne ca kanam te foofu reefan lu fi xew sëriñ bi bàyyi ñoog suñu bopp ñu taxawal suñu bopp lépp rafet kon nag nu ñu gën a gëm suñu bopp xam ne ñoom moom suñu kër yi kenn ku ci nekk sa baay am na fu mu lay dimbali ci côté waaye li nga sarse woo sa baay xaaj ba sarse wu ko woon suñu bàyyi ay keesi suukar lañu yoroon di wañ ñaar fukki beeg di ci di ci suukar ci faay tey jii ñun kenn ku ci nekk toni ciment ngay bëgg a def ca sa buntu kër juug fa suuf ak lépp boole kook joxeb dépense kon nag bu ñu wootee lu toll nii mel nii suñu bopp la ñuy dimbali suñuy soxna lañuy ñuy dimbali suñu yaay la ñuy dimbali ndax itam suñu yaay yi dañuy am ku leen bett na defal naa la nangam ñu ne am nañu kersaak delloo ko ko bu boobaa man dal dinaa sarse wu man mii samay rek sarse wu mu ne ndax ngeen siggal ma kat ndax daraa nga ju toll nii bu ñu ma koy indilee mu aw xas la ci man bu ma bu ma toogewut nii ak bokk daa neex a defar waaye jigéen ñi yàq nañ ci yu bare bare bari sa doomi ndey ji xam nga ne sa doomi ndeya bu ngeen weetee ci seen biirum néeg saw xew jag saw xew agsi man ngeen a bokk waxtaan lépp rafet te doo ci sonal keneen nga dem jëli kenn ndereb dem jëli kenn nguy dem jëli kenn mboomboy indi ko kenn ku nekk ñëw raa nga ànd ak say bokk ñu naan da moo fa moo toj fële mu ñu moo def ni moo def nangam nangam waaye diw day ndiw fa dara boo boobaa da nga doon defar waaye yàq nga lu bare bare kon